gërëm leen sant leen ci ànd bi mbokku internet yi maître Khoureychi Ba mi ngi àddu rek jëm ci li nga xam ne nag moom la ñu gis Bassirou Diomaye Diakhar Faye njiitu réew mu Sénégal mu koy amal di ko sax encouragé kon ci liggéey bi la mu bëgg nag mooy ñi fi nekkoon ñu topp leen rek ba mbaxane doone benn mu ni kon bu mu bàyyi dara ndax dogal bi moom ànd na ci bu baax a baax te itam maa nga ko ci encouragé bu baax a baax si ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ginnaaw rek di ñu luubale alalu askan kaddu yi sax ci page Facebook am la ko daal di xamle mu ne nag fi mu nekk nii nañ leen topp rek xool leen seet leen bu baax a baax ginnaaw li nga xam ni lekk nañu ko ci nguur gi fii weesu te itam moomuñu ko benn yoon ndax jàpp na ni nag ñoom lañu fi nekkee woon mooy di kàcc rek di def loo xam ne teguñu ko fenn lekk alalu askan wi te itam yàqate réew mi mu ni tey jii kon jot na ñu daal di leen rekk delloo. seen place xamal leen ni nag ñoom lañu ñu jël moomuñu ko benn yoon askan wi ñoo ko moom mu jàpp ni kon waaye itam rek di xamal ni Bassirou Diomaye Diakhar fay bu mu bàyyi mbir mi benn yoon mu sedd na leen topp rek ba mu sës lintin daal nay tontu rek maître du dundooy ginnaaw bi mu waxee ni kon njiitu réew mi rek mënul dakkal bépp liggéey boo xam ni moom lañuy amal ci booru géej gi di xam leen nag moom kon ñi nga xam ni ñoom ñoo def ci booru géej gi nekk fa di fa tabax ndax kon nag ñoom am nañu droit bi waaw wala deet moom mi xeex lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama mu ni nag li nga xam ni def nañu ko teguñu ko fenn ginnaaw li nga xam ni nag moom la ñu nemmeeku gis nag foqati alalu askan wi waaye itam leen jëm ci alam bi te loolu itam bokkul benn yoon ci luy ñoŋal suñu wàllu wérgu yaram ndax tabax yu doy war yi nga xam ni nemmeeku nañ ko ci booru géej gi te teguñu ko fenn ndax dem na sax ba amatuñu fenn fu ñu noyyee ak foo xam ne rek ñun ñoo ko moomal suñu bopp ñu jël lépp rek daal di koy jaay te itam mënuñoo teg benn yoon suñu tànk ci géej gi ngir rek mën a am nag brise de mer bi niñ koy waxee maanaam rek ngir mën a am ngelaw li namu ca nekkee loole nag mu ni lu metti la te itam nag dañ ko war a saytu bu baax a baax kon moom ànd na ci njiitu réew dogal bi nga xam ni daal dina koy jël Madiambal Diagne taskatu xibaar bi nekkoon na ganu nag may mu Ndour foofe ca 7TV doon xamle lu jëm nag ci wàllu nag njiitu réew mi fi nekkoon di Macky sàll laata muy dem mu ni nag jot nañu waxtaan nag jëm ci li nga xam ni moom moo ñeel décret yi mu fi daal di bàyyi waaye itam lu jëm ci wàllu passeport diplomatique bi ak ndàmpaay yi nga xam ni war nañu ko jox nag ancien ministre yi fi nekkoon moom nag kon njiitu réew mu bees mi di Bassirou Diomaye fay loolu yëpp yëgoon na ko te itam rek ki fi nekkoon euh, njiitu réew di Macky Sall moom jëloon na décret yooyu jëm ci wàllu passeport diplomatique yi ak ndàmpaay yi jëm ci ñi fi nekkoon ministre jot nañu sax waxtaan ak moom. mii di Bassirou Diomaye fay ba ñu déggoo ci kàddu sax nag moom mu jàpp ni kon magistrat yi fi nekkoon ci nag jamono yi rek njiitu réew mi fi nekkoon di Macky sàll jot nañ cee waxtaan itam ci ñi nga xam ni ñoo koy daal di uutu Madiambal Diagne moo ko daal di xamle nag ca kanamu Maimouna Ndour ca émission ba moom Madiambal Diagne di xamle ni njiitu réew mi fi nekkoon di Macky Sall xamoon na ni bu baax kon dogal yi nga xam ne jëloon na ko day fiy indi rek ab coow bu fi jugee te xam na ni kon nguur gi nga xam ni moo koy daal wutu wuutu du xamuñu rek mbir mi na mu koy defee ak na mu demee.